Euh, joxe sama tur ci yenn direction ya ya ca des bëgg lu ko neex waxu leen dara sax mais ñoo bëgg lu ko neex daal ne xaaruñu saraxe Aïssatou Diop Fall pour neexal mu sell mi hmm. man nga xam ne ku ne xam ne sama laam yi sama laam yi ndonga rëy hmm. waaye aw ma benn doole lu ndaw laa lu gàtt lu tuuti loo xam ne nii wax dëgg yàlla sakk laay demee di di waalo waalo kese nag hmm. xam nga ku xool sama yére bu oyof bii ma sol ah ko xool sama yere bu tuti bi ma sol hmm. eh, ak deug deug ni mu oyofee ni mu ndawé tuti fimni ni ñepp xam nañ né dama bari ay bor ndax wax deug yalla <laughs> nëbbu ma mi ñu toll lo fi jema neub tamit wa Pastef genné ko ndako mbacc ci biti motax man bala ma kenn di waxal may waxal sama bop dama bari ay bor sama xali yu bax yi ma yàlla xam nañu suma len fayé par moitié moitié lay fay Hmm? man mom motax mani man comme dee ba pare cadavre la cadavre ambulant fini ni ñaar dong lay xaar mang ngi bi tank mang maa buntu cimetière may xaar kuma buux ci pax ba. Hmm. ma noppalu walé wala benen tank ba tam mi ngi xaar deug deug xeyna na mom xamna ni xam ma bëgg yobbu cimetière camp pénal bëgg ñëk bëgg mu mos ba pare. <laughs> benen bank ngi camp pénal <laughs> lu leer ba leer moy fo ci dem si ñaar ñoñu rek. sama jàmm lay nek ndax bor yi au moins bor yi wàññeeku ma hmm. waaye nag comme ni ma wax nag man nak rey ma du yombé nonou hmm. je vends très cher ma peau ok man nëbbatuwuma làqatuwuma bokuma ci ñu encagoulé man je suis pas encagoulé man damay xeex ak mu sell mi hmm. te loolu man la engagé engagé wul kër gi nga xamné ne dëgg mako mom ni en apparence waye wax dëgg fa yalla duudu mi moy actionnaire ba hein ak tout tank bi fi né man wax dëgg fa yàlla damay raak ak mu sell mi moo ñu moo ñu jàngal gat sa gat sa jàngal ñu résistance daa résister gat sa gat sa ba toog ci fa mu toog ma it dinaa résister gat sa gat sa ba tey la ma yor jël nañu sama lépp micro dong laa dese ak caméra bii tàkk fi mu toll moo tax keroog nee naa seen formaté yooyu ay déposé ak organ autorisation déposé wu ma dara defuma lenn man yàkkamtuma lu dul ñu ñew maam lepp ma am occasion taxaw na xalé yi ma yarel bor amu lu ma len fayé nak ndax la plus belle femme du monde du monde ne peut donner que ce qu'elle a ma tok sama diggalal be di live tay ci si live met la né mhm. ndax xam naa comme ñu lañ koy waaj nangu téléphone bi mom investissement bu woor la ndax nak deug deug rew Sénégal ñu nak YouTube ak Google kon li nga gis ni yépp nak, amna ñu nak ay wala lu nu amna ñu nak su dañu bëgg lu baax man dama juddu fekk sama papa ak sama yaay liggéeyal ma ay or ak yoyu mm. ñun yor nañ ko te ñun dañu fayewu ñu or ñun te te or yi ñu yor ñun yoruñu ay 18 ak yoyu ñun à partir de 21 lañ yor. Mm. te temps yépp ñom ñi ngi may dégg Ousmane bijouterie la rotonde Ousmane Lam ak Arona rakam doomu yoralam yo yoralam mo doon jaay sama yaay or man doom yemay jaay or. léeg-léeg su ma amee kalaj-kalaj yu ndaw di benn yóbbu ba ci moom yoralaam na kuy jaay or Sénégal yoralaam ak njabootam jaayuñu or Dubaï hmm. jaayuñu geneen or gudul or pur vrai et dur sama yaay bu mu laa jënd or ci yoralaam boobu yoralaam papa yoralaam ma nga ci ruq Sandaga papa yoralaam tamit Casamance sax la tàmbalee moom mu raconte histoire am hmm. muy sama maam di sama papa di sama xarit. Hmm. ay doomam nag di samay xarit préféré ñu ngi may dégg man lu ma takk bu jógewul France yoralaam moom a ko jaay ak doomam yi te du ñu jaay lu tuuti ak lu ndaw ñu may seetaan. Hmm. su ma amee benn problème comme temps yi nga xam ne damaa nekk ci ay difficulté bor ya bari <laughs> salaire yi bari. banque yi bu dem naa fa taxaw man taxaw ma ci bureau benn ministre ak DG waaye ci bureau banque laay jëm ca banque ya saraxu ay découvert ak léeg-léeg ma jël benn bijou yóbbu ba ci foofu ndax man am naa ay or yoo xam ne man am naa yu de tous les jours mais xam nga or yi nga ne yooyu man du ma ko takk ndax deew ma xew yooyu sama yaay moom ne woon da nga jënd yooyu denc ko pour en cas de situation ay lam toll fii ak yooyu xam nga yooyu du ma ko takk man man deew ma xew deew maa ne ma lenn hmm. yooyu nag da nga koy jël yooyu mooy investissement ba boo jëlee dem yóbbu ko ci Ousmane Ousmane Konteel la yëkëti ay mbir ñëmatuma duggal ci sama xaar ci benn banque hmm. ah parce que li correct mënul la ci boko duggal correct yow ma la wara lijeenti té néna nga la ma correct nga bañ mais man fiñ toll ni man man man man man man parce que dañuy wax non non non dudu man fiñ toll ni dudu man fiñ toll ni vraiment dudu man deug deug wax na la man man presque déna ba paré horizon fu bu lay xaar légui luma neex lay wax vraiment. léegi léegi ma ko bàyyi. je suis presque morte. léegi yow ma neex laay wax fan yële. ku am jot jël ma yóbbu prison ma noppalu. du ma fayati bor du ma fay salaire fan nga da doon jiboo nga juloon. mais ba tey juboo laa jël de dafa ndànk rek. ah ku nekk nga yónni ko pour mu juboole la ak kenn. waaw loolu dëgg la. yow de nga yónni. mu jubóo ñu jubale ma ak sama mag ji Binta Diallo. Binta Diallo. waaw loolu dëgg la man nga yónni ma si correct. maa bañ a mais mais mais pourquoi nga bañ. maa bañ a gum pour andil la. ay waay Mamadou Thior yéen xale yi. téye sous le leen nga dagg ma yow joxal ma ko Mamadou Thior téye sous le coup borom correct bu su juste sous le coup. d'une suspension. dëgg la avec jot nga avertissement. jot naa ko. mais andilaat nga sa bopp noonu léegi nag. Hmm. jaaykatu saabu yi ñam nga song nag. moo tax yaa ngi dégg. <laughs> <laughs> <laughs> Eh. Não! Yey. non non vraiment bu rek lu ko neex lay wax fi dafa perturbé bi cerveau bay perturbé mu mais sonal jël sama alal di ma ay bor ma euh, euh, man dañ dañ bëgg rek. Mm waye nañ bu ñu fàtte ne màggatum koroj koroj waaw xam nga nak deug deug man yi ma ma ci nek yi xewut te eh, dañu am chance dañu tomber rek ci sama fin fan yi sama yu bax ye ñew hmm. mais xam nga man ben xalé man xam nga man toolu ma fa naan ben xalé bana la ak yàlla hmm. man àgguguma sey fini sama gal teeragul batay ma ngi jow hmm. man ay daj naturel la yor man soxlawu ma di yow yi ngay wax xam nga xalé yi ne mandikat nga da ngay da ngay da ngay génn tux di <laughs> tux <laughs> man tuxuma mandiwu ma ñaar yooyu yëpp xajul si man ndax boo ci def cadavre mais man bu naturel bi laa yor bu direct bi sauf nag que samay mbir laa yor fi mu nii moom dëgg-dëgg xale yi laa bi nag gis naa ko gis naa démb am na benn xale du ma tudd seen tur yi nag wax dëgg yàlla euh, démb am na benn xale boo xam ne liveal na ma 40 minutes. Hmm. maa ngi mais xam man xam nga xawuma nu ñuy.